Nous euh, ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen bu baax ñu ñëw euh, ci euh, Moussa suñu international sénégalais boobu patriote réagir Sénégal am situation bu tendue bi am ci suñu réew Sénégal Nous nag compte Instagram Twitter et partage vidéo donc compte Twitter image boobu la message bi mu jox sénégalais yi mu ne lii Sénégal lay xewee quoi mooy image yu garaaw yi ñu gis nii image yu très très terrible yi nga xamante ne moom lañ euh, gis nii donc mu ne réew mi nga xamante ne jàmm lañ ko xamee woon suñu confrères africains yi jàmm lañ ñu xamee woon valeur démocratie bu baax la ñu xamee woon mais loolu noonu nee na yàqu na nee te loolu daf koy condamné. acte violence yi nga xamanteni gis nako FDS yi ñu koy tek ci kaw Sénégalais yi peuple bo nga xamanteni tay mi ngi daj lu ne né lool mi ngi koy nakarlu mi ngi koy nakarlu bu baaxa baax né na image horrible ngay gis yo xamanteni pour koy sétane sax da ngay am lu la metti da ngay am lu la metti franchement parce que ci réew mu am droit ñu naan état de droit moy am lu melni c'est c'est incroyable jàmm lañ ñu xamé won Moussa ñaxaté né na la ma sama papa yaré ak jàmm mais ak deug motax deug gi dañ koy wax